émission ñu jëli sunu revue des titres di si ànd ak Rama juste après le jingle revue des titres ak euh, journal l'évidence mi xëy nag euh, tey ci ñàng ak ñàngale euh, wax ni université Gaston Berger de Saint-Louis les étudiants réclament leur bourse et bloquent tout loolu la daa ji xëyee ñu jàll nag ci direct news mi xëyee kii di maître Moussa Diop jamono yi nag mu nekk ca loxo yoon wax ni accusation contre Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye Mimi et Ndiagne Ndiaye Moussa Diop a il abusé question boobu nag la daal di samp tey ci suba si réew mi quotidien nag daal di xëyee foto ki nga xam ni moom mooy barte Barthélémy Diaz ñel nag ci wàllum dossier Ndiaga Diouf wax ni risque de révocation du maire de Dakar Barth un pied d'or loolu la daal di xëy fësal Vox Populi nag daal di wax ci représentativité syndicale wax ni les premières tendances de l'élection moom nag ci loolu la daal di fësal li nga xam ni moom mooy xëtam Euh, bu njëkk Sud Quotidien nag moom daal di xëy nag euh, ci ñaar ñi euh, di politicien fii ci Sénégal di Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko jamono yi nag am ay ennuis judiciaires yu tegu ci seen kaw wax ni audience spéciale à la Cour suprême sur l'affaire Ndiaga Diouf le 22 décembre verdict sur la réintégration ou non du leader du PASTEF sur les listes électorales ce jour Sonko et Barth retiennent leur souffle loolu la daal di xamle le quotidien ñëw nag ci président Macky indemnité aux militaires invalides à la retraite euh, Semga Mansour Seck euh, encore décor euh, Macky loolu la daal di wax soleil national nag daal di xëy ba tey nag ci président Macky Sall ma dem fële nga xam ni moom mooy ca Genève nag la mu wax nag ca organisation mondiale de la santé nee na pour la fin du dictat des puissances et pour un commerce interne un commerce mondial durable et inclusif Macky Sall dit ses à l'OMC loolu la daal di fas fësal les échos ci lañ daal di ñëw nag moom mu daal di wax ba tey ci maître Moussa Diop wax ni affaire des diamants et armes maître Moussa Diop entre les mains du euh, procureur enquête yéen a kaay moom itam maire de Dakar bi la daal di xëyee ci xëtam bu njëkk wax ni procès Barthélémy Diaz dans la mort de Ndiaga Diouf épisode épilogue d'une tragédie loolu la daal xëyee fësal Walf Quotidien moom nag xëyee kii di ancien ministre de l'intérieur di Aly Ngouille wax ni Petrotim Diamant Pologne Aly Ngouille Ndiaye euh, trop d'affaires pour un euh, candidat l'observateur nag euh, moom daal di wax ni accusation de malversation de malversation ces grosses affaires jamais conclues wax ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi te ay affaires daal di nag tegu ci seen kaw te jamono ji ba léegi leeragul ñu daal di jàll ci source a ba tey nag moom mi ngi des ci Aly Ngouille Ndiaye wax ni Aly Ngouille Ndiaye face aux enquêteurs de la sûreté urbaine dans l'affaire de la présumée mine de diamant de maître Moussa Diop, détail d'une audition. libération yéenekaay xëye nag ab jëye bu xew fa fële nga xam ne moom mooy ca diwaanu Touba benn nag gérant euh, bu station la ñu daal di faat bakkan wax ne assassinat d'un gérant d'une station service à Touba deux pompistes placés en garde à vue L'As quotidien euh, moom nag daal di ñëw ci gendarme ak euh, diplomate yi la daal di wax ni gendarme diplomate de l'électricité de l'électricité dans l'air loolu la daal di fa fësal tribune yéenekaay nag moom ba tey daal di ñëw euh, ci affaire maître Moussa Diop euh, boobule mu wax ci wàllum jama wax ni après les révélations de maître Moussa Diop la montagne va-t-elle accoucher d'une souris une énième souris loolu la daal di samp ab laaj ñu daal di nag jeexale ak journal l'évidence moom nag daal di wax ci ki nga xam ni moom mooy Mouhamed mustafa Diagne coalition John 2024 l'un des plus grands chantiers du président euh, Mouhamed John Mouhamed Boun Abdallah John est la réconciliation nationale loolu la daal di wax foofu nag la ñuy jaaree a dal di jeexal li nga xam ne moom mooy la revue des titres merci beaucoup Rama am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax